am na yeneen plainte yoo xamante ne ñu ngi xaar Doro Gueye. yeneen plainte waaw am na yeneen plainte yoo xamante ne ñu ngi koy xaar. jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy eh, topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i info sant ak ngërëm ñel na leen yéen ñi nga xam ne yéenee safoo seen bii di Buzz Actu 221 moom mi nga xam ni moo di journaliste juriste bi la faroo fa nga xam ni moo di Walfadjri daal di wéy ci turu Papa Papa Ndiaye daal di nay àddu jëmee ci taxawaay bi nga xam ni jamono guñ toll nii moom homme d'affaires bi daal di na koy amee di wéy ci moom mi nga xam moo di Doro Gueye waaye tamit daanaka ay jafe yi nga xam ni moom mën na ci lor lay daal di dund jamono guñ toll nii waaye nag daal di ñëw ci coow li nga xam ni dox na bu baax a baax ci entre Doro Gueye ak ki nga xam ne moo di colonel Cheikh Sarr moom mi nga xam ni moo di Papa Ndiaye daal di indi ay kaddu yu dal di yéeme kaddu yu daal di am solo waaye tamit daal di ñëw bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni ak li nga xam ni tey jii moom moo ko nar a daal kii la di Doro Gueye ndax kat mën nañ ne ci affaire yu bëri lañ koy daal di tudd moom mi nga xam ni moo di Doro Gueye Doro Gueye ñëpp nga xam nañ nekk ci mim réew di Sénégal waaye nekk ak homme d'affaires bi nga xam ni kenn du ko fàtte mim réew waaye nag daanaka mën nañ ne Doro Gaye ci weer yi ñu génn dégg nañ bu baax baax coow ci nga xam ne saa su ne koy amee jëmee ko ci yoon waaye tamit jëmee ko ci buzz bi loolu sax tax na Papa Ndiaye daal di xam ne bëri na ay plainte collectif yi nga xam ni moom Doro Gaye mu ngi koy xaar bu baax a baax loolee nekk ay mbir yi nga xam ni lu daal di yéeme la ba tax na dañuy taxaw déglu pap kàddu yi nga xam moom la ci yëkkati di ñëwaat beneen mbir nag bi nga xamante ne moom moo ci topp mooy la plainte objet de cette présente procédure am na yeneen plainte yoo xamante ne ñu ngi xaar Doro Gueye yeneen plainte waaw am na yeneen plainte yoo xamante ne ñu ngi koy xaar donc si victime am yi bëri nañ ñu ngi waaj a constitué wu en collectif hmm. collectif des victimes de Doro Gueye

yow képp ngay jóg di dem boo mënoon dajale yëpp mu doon plainte collective mhm. dénonciation collective mooy ëpp doole boo ko defee yow kese donc am na ci yeneen mbir yoo xamante actuellement ni mi ngi nekk di ko xaar donc loolu yëpp ci ndoddam la mhm. maintenant génn bi mu génn bu fekkente ne tàgguwul woon juge bi ba muy dem mhm. def na une violation de la loi parce que contrôle judiciaire bu ñu la ko tegee booy génn da war a tàggu juge ba juge bi jox la autorisation juge bi mën na la lancer mandat d'arrêt. mandat d'arrêt c'est ça le risque à tout moment juge bi mën na la lancer mandat d'arrêt boo xamante ne euh, fo fo foo xamante ne nekk nga fa mën nañ laa jàpp indiwaat la ci réew mi wala boo dugg ci ci réew mi mën la jàpp yóbbu la directement fële nga xamante ne moom mooy prison donc loolu mooy risque yi nga xamante ne. Hmm. am na ci maintenant euh, homme de tenue bi nga xamante ne ñu ngi ko ci ñu ngi ko ciy. tudd le colonel Cheikh Sarr. waaw parce que gis nañ ne démb moom tamit dañ ko mandat de dépôt. ki nga hmm. xam ne mooy colonel Cheikh Sarr ñu bëri na xam nañ ko ci li nga xam ne mooy wàllum gendarmerie suñu demee ba di jàpp li nga xam ne nekk na dossier bu nga xam ne bu sérieux la Pape. waaw dossier bu sérieux la te moom dañ ko yóbbu ay tribunal militaire ak juridiction yi formé yi yi àtte de tenue. Hmm. alors parce que moom responsable dem boo xoolee euh, quelque part bokk na ci éléments yi nga xam ne tuuma yu ñu teg ci kawam la moom colonel Sosa moom hmm. euh, am na ci. yenn cas yoo xamante ne il a servi d' entre victime yooyu ak ki nga xam ne mooy Doro hmm. donc foofu nag comme li may bëri na ñu tëdd ci kaso bi tey jii nii xam nga lan moo leen ko yóbbee intermédiaire. yow da ngay bëgg oto man ma xam kuy jaay oto ma nekk ci diggante bi wala nga bëgg terrain ma xam kuy jaay terrain ma nekk ci diggante bi. Hmm. wala nga bëgg dara ma xam ku koy wala nga nekk bitim réew bëgg tabax. Hmm. wóolu woo maçon yi wala entrepreneur bi nga jaarale xaalis bi ci man. te problème bu amee ba kooku def yëf ju jéey ji buñ ko mënul teg loxo. Hmm. yow intermédiaire bi la jàpp tëj la ci kaso bi bëri na ñu bëri ñu nekk ci kaso bi loolu am na ci ñoo xamante ni sax transaction financière xaalis ba muy am jëflante xaalis ba muy am entre ñaar ñooñu boole woon ñoom fekkee wuñ sax dañoo yem ci boole leen rek fekkewuñ ba ñu jox leen xaalis bi malgré tout ils sont en prison donc lu waaye di service intermédiaire na ko xam parce que kooku ngay booleeg nit ki bés bu fa problème amee wala njuuj njaaj am wala ñu triande nit kooku noonu bu kooku dawee bu mënuñ koo teg loxo yow sa bopp yow la ñuy teg loxo donc côté intermédiaire na ko nit ñi moytu bu baax a baax yii nag man damay faral damay damay bëgg di ci attirer attention comme ni ma ko defoon en matière de drogue dem aéroport ñu lay dénk ay bagages ak jàllaleel ma lii ak wala yi mhm. am na ci yoo xamante ni nit ñi dañ ko war dañ ko dañ ko war moytu pour mbañee une problème donc lu jëm ci wàllum intermédiaire moom. Mhm. vraiment nit ñi war nañ ko moytu bu baax a baax bépp booy boole ay nit nga xam ñi ngay boole ñan la wala bokk euh, bu fekkente ne kii bi mënta ñàkk sax nga nga nga xam bu baax a baax lan mooy rôle bi nga xamante ne ak taxawaay bi nga xamante ne da nga ko ciy am balaa nga ciy def loo xamante ne mën na laa mën na laa mën na laa indil indil problème mais en résumé daal man li ma jaaxal ci l'affaire Doro Gueye mais comment ça fait mu am contrôle judiciaire hmm. parce que boo xoolee hmm. lan moo tax toutes ces restrictions là appliqué ko ba mu mën a rëcc Mm-hmm. loolu également loolu lu leeral la comme la ma waxoon ci l'affaire euh, Dieynaba Sangare Ndiaye ak jëkkëram ba rek comment fait-il que Dame porte plainte depuis avril ñu toog ba octobre soog ak instruire plainte bi loolu indi trouble à l'ordre public bi am yépp mm-hmm. donc fii tamit également pourquoi ces restrictions là n'ont pas été appliquées à la lettre loolu mm-hmm. également laaj la boo xamante jaaxal na parce bu ñu ko defoon amaana du mën a rëcc bu ñu tey woon mënoon nañu tey passeport ordinaire mu am passeport de service wala passeport diplomatique. diplomatique loolu tamit gars yi ñu ngi koy wax. waaw donc loolu tamit nekk na loo xamante ni lu lu kii la. Hmm. mais contrôle judiciaire boo ko amee. Hmm. du ñu yem ci confisquer sa passeport. normalement aéroport dañ fa war a notifier interdiction de sortie Hmm. donc yooyu yëpp ay mesures yoo xamante ne. ñu waroon jël dañoo bëri ay galgal de mën nañ jaar ci sous région bi ba dem ay côté Mali wala Mauritanie jël seen passeport diplomatique génn. ah waaw waaw lu ne mën na de dugg oto dem ba Gambie après. jëlee fa fu nekk la ñuy jaar. mais yaa ngi wax sànq lu am solo. ci loolee moom journaliste chroniqueur bi la nekk juriste fara foofee ca Walfadjri kàddu yi la daal di yëkkati jëmee ci ko ci ki nga xam ni moo di colonel bile di colonel Cheikh Sarr waaye tamit jëmee ko ci ki nga xam ni moo di Doro Gueye di om d'affaires bile ci coow li nga xam ni saasu ne dañuy gis ni moom dañ ko cee tudd bu baax a baax te daanaka mën nañ ne ay mbiram gis nañu bu baax ci dernier weer yi nga xam ni ba ñuy génn ñu mel waaye kat daanaka kàddu yi nga xam ni moom la Papa Ndiaye yëkkati dafa mel ni door a commencé gul sax ci ay jamal ma jamal ma ñëw ci lu jëm ci wàllum yoon nag kat bu fekkee ni moom plainte collectif dafa nar a dal ci ndodom kon nekk beneen mbir mi xam ni lu daal di yéeme la ba tax na moom Papa Ndiaye indi ci ay leeral bu baax baax indi ci ci li nga xam ni moo nar am waaye ca loole ak mandat d'arrêt international bi nga xam ni kii ak moom bi nga xam ni moo di homme d'affaires bi le suñ njortewul buñ deful ndànk mun nañ moom mi nga xam ne moo di juge bi bis bu ko lancé dina am problème bu baax a baax waaye tamit Doro Gaye nekk li nga xam ni lu daal di yéeme la ba tax na ginnaaw ba amalee ab yoon ci li nga xam ni moo di lenn ci lu jëm ci wàllu wàllum yi loolee sax tax na mun nañ ne dañ ko tere woon mu Sénégal moom nag Papa Ndiaye daal di xamle su fekkee ni jamono gi ñuy waxe ak yéen moom Doro Gueye moom homme d'affaires bile amul benn yoon ndigalu juge pour mun a génn réew mi le loolee dafay nekk acte bi nga xam ni kon daanaka juge bile mun na cee sukkandiku ba tax mu daal di def li nga xam ni moo di mandat d'arrêt contre ki nga xam ni moo di moom Doro Gueye ndax kat loolee dafa nekk acte yi nga xam ni rafetluwul benn yoon te yoon nanguwu ko benn yoon ak ki nga xam ni saa su ne dafay layoo jëmee ci wàllum yoon ak ñu tere ko mu génn réew mi kookule amul droit benn yoon daal di génn réew mi le loolee sax tax na Papa Ndiaye daal di ci indi ay leeral yu daal di am solo jëmee ko ci taxawaay bi nga xam ne ëllëgu doora Gueye gilee waaye nag mun nañ ne mbir am na bu baax a baax ndax tey jilee Dora Gueye mi le fan la war mun a jaar ba génn mim réew di Sénégal bu fekkee dañ ne mim réew di Sénégal sécurité am na fi total ci suñu nga xam ni taxawaay bi nga xam ne saa su ne dañ koy gis ci frontières yi di ko gis ci aéroport yi di ko gis fu nekk ci wax gi ci jaww ji ak fépp kon naka la mun a def ba ki nga xam ni moo di Dora Gueye génn loolee bu fekkee nekk na acte yi nga xam ne am na gis nañ ko bu baax Buzz Actu 221 saa su ne jàngal yi nga xam ne moom lañ faral di def mooy Doro Gueye mile ak ku dul moom ku nekk suñu ñi nga xam ni ñoo di force de défense et de sécurité yi seen liggéey rafet loolu waaye nag war nañ gën a mën a yokkaat li nga xam ne moo di kaaraange réew mi ne ñoo di nguur gi yees gi de war nañ mën a gën a jàppandaat jàppalandaat bu baax a baax jëmbale ko ci ñi nga xam ni ñoo di ñoo fi nekk suñu takk suñu takk der yi la di force de défense et de sécurité yi mun leen jox li nga xam ni moo di wàcc jumtukaay yu yore ci ñoom ba tax na lii du fi amati benn yoon ndax kat mim réew du Sénégal tuuti nag tuuti boo xam ni daanaka képp koo xam ni dañ laa wax wàllum yoon boo jaaree fa fekk ci aéroport mënoo jàll waratoo mën a jàllaat feneen si fi nga xam ni moo di ci lenn ci waax yi wala kat fi mu mën a doon ci mim réew du Sénégal ndax kat war nañ mën a am benn sécurité bu mat sëkk lii dafay wane ni bu baax a baax doon doy na ak do yoon la ñu daal di waat jëmee ci li nga xam ni moo di sécurité mim réew du Sénégal donte am nañ ko ba doyal ko waaye nag war nañ gën a mën a renforcer waat waat ndax tey door Doro Gueye ak lu munta am ba am warul mun a génn benn yoon même réew di Sénégal su fekkee ni comme ni ko Papa Ndiaye juriste bi daal di waxee ni amul benn yoon ndigalu ki nga xam ni moo di juriste bile waaye lu ci mënta am am moom colonel bi nga xam ni moo di colonel Cheikh Sarr jamono gu ñuy wax ab yéen teg nañ ko loxo ndax kat ci jima yi nga xam ni moo di coow bi dox ci Doro Gueye gile daanaka loolu nekk na ak yi nga xam ne lu daal di yéeme la waaye nag Sénégal gile ak ki nga xam ne moo di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina xam la woon ginnaaw ba muy prêter serment mooy du protéger kenn ku mu mënoon ci mim réew di Sénégal ci lu jëm ci wàllum justice kon nag daanaka gëm nañ bu baax a baax jàppam ki nga xam ni moo di colonel bile justice dina def liggéeyam bu baax a baax waaye tamit ci loolee justice dina defaat liggéeyam bu baax a baax ba dal dellu siwaat ki nga xam ni moo di Doro Gueye ngir kat lépp lu ñu koy toppee ci mimiro réew di Sénégal ñu indi ci ay leeral yu mat sëkk mim du di Sénégal